Assalamualaikum Assalamualaikum Bagi Bagi Senegalai mbokku patriote yi jen jeune patriote yi mbokku jeune patriote yi ngi di nuyu yéen suñu rakk yi ñi nga xamante ni la ñuy xalaat saa su ne rakk ñu ngi leen di nuyu yéen ndaw yi Sénégal Yen yaakaaru senegal bu ëllëgé yen ñi nga xamanteni yen yéen yor réew mi bu ëllëgé yen ndaw ñooñu ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfe di leen wax ni gatcha ngalama yen ndaw ñu fa ngeen ko japp fofu la bu leen ko bay dina dikk ndaw yi yéen ndaw yi senegaal yi fi ngeen ko jàpp ndaw ñi xam leen ni foofu la waaw li ngeen gëm xam ngeen ni loolu moo jëre gëm ku ñëw di leen andil xibaar gëstu leen kii andi xibaar bi mooy kan ba pare motax ma len di wax ni suma rakay jappal len fi ngeen japp mu deuguer Ousmane Sonko yalla mo len bolé mom kon du ay wax kat yu bon ñoy jog pour ya deram deru Ousmane Sonko yeen peuple bi yeena ne du tilim kon suma gars yi dama leen a yërëm sax barki borom njaareem dama yërëm suma gars yi yéen chaque jour ngeen ut goudron goudron ñëw sotti ko Ousmane Sonko askan wi raxas ko ba mu set wecc nee leen ay kàcc la du dëgg da ngeen di kàcc bu ngeen yeewoo dangeen di kàcc bu ngeen di tëdd yéen a ngi kàcc bu ngeen demee ni sénégalais yi tëdd di nelaw yéen a ngi regroupé wu di kàcc su ma rakk yi <laughs> loolu laa bëgg ngeen comprendre ko yéen su ma rakk yi yéen lay waxal jappal len fi ngeen japp te xamni ni lañu defone ni lañu defone la <laughs> Dia ni lañu defone Cheikh Anta ba xagn len ko jappal len fi ngeen japp te xamni budul won ku bax ci yeen Ousmane Sonko bu gënul won ci yeen duñ ko topé ni Ousmane Sonko. bu gënul woon ci yéen ko du am coono giñ koy teg nii yéen jeunes yi <laughs> yéen lañ bëgg a yaaxal parce que yéen la Ousmane Sonko arrangé ñoom ay kàccakat lañu ay njuuj njaajeer lañu ay workat lañu Ousmane Sonko arrangé wu leen mais yéen jeunesse. yéen ñi bëgg seen ressources naturelles yi jëriñ leen bu ëllëgee yéen ñi bëgg a xam ci seen ressources naturelles yéen ñi bëgg am avenir bu wóor hmm? yéen Ousmane Sonko moo leen arrangé allo kon yi su ma rakk yéen moom jàppaleen fi ngeen jàpp nee naa leen image yu Ousmane Sonko ñoom boobu ba léegi loolu daf koy yokk daraja ñoo ngi koy jéem a tilimal waa ji darajam ma ngay gën a jóg waaja askan woo ña ngi koy gën a wóolu waaja askan waa ngi koy gën a jàpp waaja askan waa ngay gën a am confiance ci moom waaja gaa yaa ngay gën a déterminé wu ngir moom waa ji gaa yaa ngi gën a pare pour moom waa ji gaa yi nee nañu bu joxee ndigal foofu la ñuy dem waa ji nee nañ askan bi nee nañ ko boo joxoñee foo joxoñ foo joxoñ foofu la ñuy xool mais yéen ngeen ne du ngeen noppalu mais bro amu leen yéen beneen liggéey mbokk yi ñii amuñu beneen liggéey loolu yëpp def ngeen ko mobilise ngeen tout lu ngeen mën a am mobiliser ngeen ko askan wi toog ne jàkka di leen xool fu ngeen tullee askan wi mun na leen teg leen galan boobu baaxul <laughs> ñun dañ dégg daaj ñun ay sëti maam du njaay roos lañu askan wi loolu lañ leen xamal dañoo dégg daaj surtout cette nouvelle jeunesse là mais cette jeunesse là elle est cette jeunesse mais j'ai confiance en cette jeunesse Mon jeunesse bi dama leen a wóolu xam nga booy lu tax ma wóolu leen parce que da ngeen a comprendre que ne Ousmane Sonko kii bu fi jaaree bu fi jaar bu bu ëllëgee du fi gaaw a jaarat Ousmane Sonko du fi gaaw a jaaraat bu ñu rëccee rek mooy njaaxum am na so booy booy loolu nañ comprendre xam nga man man affaire yi su ma yoon nekku si en fin de compte ah, man dama toog di seetaan la seen politique depuis belle lurette xam nga Massar ñun dañ juddu rek di seetaan seen politique bi di xool muy dox di gis di comprendre di apprécier di observer xam nga gis un phénomène ki est sorti je man je ne sais où qui se nomme Sonko xam nga man mais gars bi ni ko jeunesse bi toppee nii. gayan bi mooy kan mais gayan bi il risque de de de de de marquer l'histoire de son pays mais gayan il va marquer même l'histoire de l'Afrique mais qui est ce phénomène Ouais, moi je ma yoon nekku ci suis ah, dama doon toog di seetaan parce que affaire yi dafa mujjee woon a lëndëm mais je jékki-jékki gis Ousmane Sonko mu yëkkati loxoom ne man waaye yow mosuma sàcc alalu kenn mosuma sàcc seen alal maa ngi nii te bu ma neexoon ma nekk milliardaire bu ma nekkoon ma nekk lu ma neex mais ma ne mais gayam bi mais loolu moo tax may féliciter jeunesse bi parce que jeunesse dafa war a observatrice ba pare objective les politiciens yi di leen observer ba pare objectif le moment du choix nga xam ki ngay tànn mooy kan ndax kii amal na la njëriñ da ngay observer ils sont nombreux ñëpp taxaw ñëw naan leen mën naa leen yor maa leen bëgg yor je vais rétablir la république je vais xam nga la vertu avant le par xaw la naax yooyu noonu xam nga fekk bu ñu sa trajectoire mais yow dinañ xam ni loolu mënu fa nekk ah c'est affaire de partisanerie moo fay nekk te Ousmane Sonko du def affaire de partisanerie parce que Ousmane Sonko borom xam-xam la moom dafay bëgg ay ay résultats dafay bëgg buñ ko joxee mbir nii mu am ci résultat bu positif xam nga ñooñu ay excellence lañu xam nga ñooñu dañu bëgg seen liggéey ñu am ci. xam nga satisfaction bu ñu tëddee nelaw xam nga mais yow dem jëli ji ay ngaaka blende teg leen ay ministre ñoo xamante ne bu ñu waxee ba pare sax nga ne leen yow li nga fi wax dara xaw kenn xamul li ngay wax mooy lan ah mbokk yi <laughs> ah yéen a ngi imaginer loolu ngeen loolu tiitalu leen. fal ministre ba bare tok jegi jegi ne ko yow li nga fi wax bu yow da ngay wax ba pare ken du xam li ngay wax on yow ati yi nga tok yeb ngeen di tok conseil des ministres tok deng ko ay projet deng ko lepp bro ah bokki yow tamit dégg na affaire bu tamit bu bu bu bu bu way njitu rew mi wax ci projet yi ñuy joxe neena nee na joxe ay mbokk fii ay xaritu ah dafa jege mbokku président dafa jeg xam nga nee na yooyu sëf mais mais moo ne est-ce que askan bi ñu ngi dégg li président di wax dëgg dégg dëgg dëgg ñi ngi koy dégg mbokk yi yéen jeunesse bi yéen a ngi dem dégg loolu hmm? problème mu marché chantier yi nga xamante ni inachevé yoo xamante ni ay deux mille quinze la woon ah mu ne yooyu dañ ko war a arrêté ah parce que kii suma xarit la suma mbokk la kii suma mais mais yéen sénégalais yéen jeunesse bi mais mais mbokk yi mais mbokk yi loolu dafa yéeme hmm? dafa yéeme dafa yéeme Pape Gueye dafa yéeme man bi ma déggee loolu dama tiit xam nga doom naa dégg ñu naan ab tailleur bu ñu jox xaw ma pooru ndaay anaax yooyu xam nga xaw ma jaaykatu fëgg jaay xaw ma bu jox projet pooru ndaay yooyu yooyu yëpp daanoo ko du dégg mais xam nga boo doomee ba toog boo xam ana building administratif bi jaaykatu karo lañ ko joxoon building administratif jaaykatu karo mais yooyu yëpp mais c'est des des centaines et des centaines de tonnes pap gay motax musa mësa am tram yu bees yu melni xam nga ñi ay tram yu dom yu dom daw fi jamono yi xawma lan la won léegi wacce nañu ay tram yu bees tax gis nga gis nga bële gis nga yu tax automatique te sen tram yi sen tram yi yu yi sa say jamono yi maam ñoo ci daan yéeg mais fi mu toll ni ñoom seen pétrole ak seen gaz jëriñ na leen ba xam nga léegi tramway yu <laughs> yu bees tax lañ jënd waaye parce que ñoom dañu am ay njiit yoo xamante ni comme Ousmane Sonko xam nga du sàcc xaalisu réew mi te ku ko sàcc mu dóor sa loxo waaw Ousmane Sonko <laughs> 막니가와 뭐라고 ah man du mo waa mag ñi bro mag ñi ñoo taral sa rew mi mag ñi mag ñi sa rew mi ñi fal fal nit ba pare def ko buur di ko jaamu mag ñi rek fa andi fal nit barki démb bu bokk ci askan bi nekkul woon dara ci askan bi hmm? ñu def ko tourné di ko jaamu tourné mu yore seen destin tourné jox ko seen destin mu mu xam nga mag ñi ñoo indi loolu mais jeunesse bi loolu demistier nañ ko démystifier nañ ko dañu war a démystifier yooyu bu ñu bañ a déglu te mag ñi nga xamante ni ñi ngi leen di yàqal ñooñu seen xam amul njëriñ de malhonnête intellectuel xam nga ñooñu yéen jeunesse bi yooyu bu leen leen déglu mosuñ ñu leen a amul njëriñ mësuñu leena amal njëriñ c'est des mercenaires xam nga c'est des c'est des c'est des snipers you know amuñu njëriñ amuñu njëriñ boobu mu leen déglu sax nga xam naa yow oh, yàlla ya xam na ne du ma leen déglu barki dem rek maa leen di wax naan leen waa yooyu sant sek man du ma ko déglu yàlla ya xam ni man kooku du ma ko déglu di suma àdduna pour lan ay ay jigéen boobu mu toogal journaliste boobu sax dootuma man kooku du ma ko du ma ko déglu pour lan man tardel suma bopp alors cool.